Père Zora. waaye. ma ñëw dugg ak yow nag. Mhm. tubaarkàlla macha allah ci sa xarit. sa lépp muy saala bi nga jaay gàmbel bi. ñuy waxtaan ma nag moom macha allah ba am fu nu dugg. ma bëggoon nga duggal ma rek ci seen voyage ba ca avion ba rek tuuti. <laughs> ndax tubaarkàlla. <laughs> xam naa ne barki démb toj na téléphone waaye xel na tey di nga fi allah <laughs> seen tukki ba nu mu demee woon. waaw may profité dans l' occasion. di nuyu sama rakk ju baax jooju di Sall Bigué. Sall Bigué ndeysaan. li ñu bokk maak dafa bari. Hmm. Sall dañoo ànd tukki. Uh-huh. ci laay xam ne Sall jullit pire la. bitim réew sore. Hmm. ak dëkk yi ñu dem yëpp maak moom. Hmm. fu ñu dem moom a jiite. Oh, julli. fajar la ñuy julli. Oh. waxtu la ñuy julli. te masuma fàtte lu ko fu ñu fàttee waxtu. yaag moom. barke Muhammad. te sàll na ku mu woon dafa jàng du ma gëm foog naan jàngul dara foog naan comme comme ni jàng rek laa <laughs> waaye bu ñu di jiite mu saar yoo xam ne man sax ah. du ma xam saar yoo. danaan ko xulal um, ko dafa a war xam ne daal laa <laughs> moom. bi ñu jógee Paris. waaw ah. Macky Sall. war mm-hmm. dem Italie. Mm-hmm. man ko Sall te ñoo jël train mun ma non masu daal ñu jël avion rek. nañ nga foofu comme clando yi fii. waaw ñu jógee fii di dem ay Colobane ak yooyu foofu tam dafa am comme clando avion quoi. clando avion mooy avion ndaw yi rek waaw. waaw waaw ay ay vingt personnes lay jël wala trente wala genre yooyu quoi waaw. biñ ko jëlee nag daw ay presque xam nga diggante bi du sori ay quarante cinq minutes la koy dawal ak yooyu. mais ñu dawal ay dix minutes quinze minutes rek. avion bi xaw a yëngatu tuuti quoi. keroog laay soog a xam ne Saala ndekete dëkkul Dakar keroog laay soog a xam ne ndekete Saala bi ngeen dëkk bu naan nuyoon maar la dëkk. ba Saala génne course bi ne sa maam nuyoon maar. Macha ngaay ca ginnaaw àll ba. maa ngi nii. jabar laa bàyyi ki doom ki mbokk yii xaw ma lu mu doon. Saala day jégjége sa tool tubaab bi ci biir am na tubaab bi bu bi. lan laa ñëw itam tubaab yi ne ko hmm. am. waaw parce que il faut ñu soulager ñu quoi su waxee rek tubaab bi calmé ko sala xolaat ma. Hmm. teewaat course gi. sàmmam muy mar man Saalé Bigué Ndiaye Gambie nii rakku ndey Fatou Ndiaye nekk Italie nu mu tuddati am na sërëb ba nekk Italie man man la sama yaay am ci góor. ab menuisier laa xam nga woon Sala dëkk de menuisier la lim na ba lim menuisier menuisier mu Sala daal dafa am menuisier menuisier ébéniste ndekete Sala dàq ci àddina. ndeysaan ndeysaan moo tax bi ñu toggee ay quelque temps mu siiw nii. ndeysaan waaw. benn communicateur nag bu am classe. ndeysaan am classe. bu am wax lu baax. wallaay ndeysaan. Euh, dama koy ñaanal rek. Ndiaye jàtte yàlla na yàlla barkeel sa liggéey. rakku ju baax la daal. lii nag. waaw dama ko wax rek. na ko wax waaw. waaw pour nit ñi ree. pour nit ñi ree tubarkalla waaye nag njaay yi. su laa nga di tuuti. bu bu ko jàppee dara. bu ko jàppee loolu baax na ci moom ndax. boo demee këram noonu la def garab di ma nettali.